nanu bamtu nettali bi weesu benn lan la yeesu def ngir firndeel ne am na sañsañu sañu baale bàkkaar ak faj nit ñi itam yéesu dafa faj lafañ ba ñaar bi yeesu di nelaw ci gaal gi te taalibe yi yee ko lan la def yéesu sant na ngelaw li ak duus yi ñu dal ñett lan la yéesu def ak juróomi mburu yi ak ñaari jën yi sakkanal na leen ba lu ëpp junni nit lekk ca ba suur ñeent lan la yéesu defal nit ki ay rab jàppoon te dëkkoon ca sëg dàq na rab ya ñu dugg ay mbaam xuux mbaam xuux yu tebee ci tund wi daanu ci dex gi lab juróom lan la yeesu def bi mu demee ci bàmmeelu lasaar yeesu wax na leen ñu dindi xeer wi noonu mu wax ci kaw lasaar génnal juróom lu xew lasaar génn na ak ay càngaay yi néewam